maa ngi leen di nuyu maa ngi am mbégte nag dalal sama ay collaborateur samay collègue de service ci Hadratul Malikiya muy ñaari télévision yoo xam ni dañoo juddu ci xadara bi di liggéeyal xadara bi ak di jàppale population bi mangi ci ànd ak ci ben caméra bi pap Aline Diop mom organam mi ngi tudd Almuna ak Ñang fal dara ji tiiw man nak mangi tuddu Serigne Babacar simbou matériel l'islam di animateur ci rajo Albayan FM ci ndigalal suñu kilifa suñu Serigne seigne Abdou ñoo mbégte dalal suñu mbokk yi ñu dor yéene imisong ak yéen émission boo xam ni li ko tax a jóg mooy wér-gi-yaram ndax seen maam Cheikh Sidi Hadji radiyallahu taala dafa waxoon ni bu delluwaatoon di ndaw li docteur yi di def maanaam faj ci loolu da neex man nak kuma xam-xam ma ci praticien fédération internationale bu Sénégal ñako ko formé ca laa bokk ñu composé luy tollu ci quarante cinq yo xamné ne bu ci association la ba pare ñu ak ministre de la santé di liggéey ak moom at yu bari ña ko formé ca laa bokk ña ko tëgg ca laa bokk ña koy dirise itam ca membre bureau ba laa bokk bokk na ci ñu yor seen communication man mu nekk nag lo moo xam ni métier mu noobal la mu bari lool njariñ bari ay tuyaba ndax métier mom bu fekkee ni dem nga ba sunu borom addu ci alxuraan tuddu ko rek lolou dafa nek lu am solo torop ta suñu borom mo wax ni wa min alqurani ma wa shifaa'un wa rahmah mu melni fofu dañ ko fay poser question ni ko ci ñan mu ni lil muminina ci ñi ko gëm waye fajum wolof dafa nek lu riche man de suñu famille man na ma wax ni budul dom yi ma jur maa ko ci mujj def jele ko ci sama baay ak sama yaay ak sama mam ak sama ñoñu ñoma formé ma formé bu diku formé samay dom 1973 la njëkk jël kayitu fa faxas ko sunguf def ci laxas ko jox nit boobaag léegi génnuma ci xam naa bu fekkee danaa ko tënk rek mooy daañu leen fas yéene indil ay garab yoo xam ni danañu leen ko wax mbaa wan leen ko ndax moom lañuy ñuy liggéeye lu ëpp quarante ans ëpp na ko bu bari sax moom lañuy ñuy liggéeye di ko jëfandikoo yàlla dañuy defal sutura ñu di ci am ay résultat bu fekkee tënk naa tuut rek ci eh, maladie yi nga xam ne moom la ñuy traité siti mi nga xam ni moo tëñu bari ak kurabët ak li ñuy wax hémorroïde ak li ñuy wax faiblesse ak saytaane ak rab ak kuñu wum wala ku ñu liggéey wala ku cat jàpp wala jubale ay nit te yàlla tax wala ñu féewaloo nga bëgg leen a jubale te yàlla rek tax ak ay muslaay bari na daal ak yeneen garab yi ñuy jëfandikoo yit bari na lool wax dëgg yàlla xëy na mën naa ci tënk tuuti rek du ñàkk bu ngeen ñu dee siiwar ci émission yi incha allah daañu leen ko faram fàcceel wan leen ko mbaa ñuy wax leen ko jàngal leen ko waaye bokk na ci li ñuy tuddee karasol ak lingom ak li ñuy tuddee saab-saab ñi naa ko nebedaay ak li ñuy tuddee garabu fuuf ak dibbu toon ak xaax coy ak farxañ ak bari na de looraak ak eh, eh, sëncëg sumpëg kàddak xayak yooyu yëpp ay garab la yoo xam ni ak siddéem ak guy bu ci ne ak la ko tax a jóg ak la muy faj ñu bari nag ñi ngi faj siti te amuñu ci résultat li ko waral mooy dañoo jaawale ndax siti bu fekkee dafa ànd ak kurabët nga bëgg ko traité bëgg ko faj boo fajee siti kese kese doo am résultat bu fekkee kii daa kurabët nga di ko faj siti doo am résultat kii xay dafa am hémorroïde hémorroïde dafa am interne am externe bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti ak boo xam ni manifesté wul fenn waaye day mitti rek loolu itam day am yooyu yëpp bu ci nekk dafa am nu ñu koy faje am na yenn feebar yoo xam ni it pour nga faj ko da ngay jël ay garab garab composé ko mu door laa jox li nga bëgg nga faje ko am résultat moo tax faju wolof kenn waru koo làmbutu mais malheureusement nag euh, foo dem am na point fort am na point feebal bu fekkee da nga ko jaarale ci yoon waroo faj kenn te amuloo récépissé waroo faj kenn te amuloo kartu association yooyu damaa toog ba pare waaye yëpp a ngi fi mais incha allah danaa leen ko won parce que c'est très important ndax so démé ba ministre de la santé def la partenaire ngay liggéey ak mom ngeen def séminaire fune ne tuddé ñuy asma dañ koy traiter li tuddé diabète jabet euh, tam nañ ko ba japp ni du wër tam nañ ko ba japp ni du wër waaye nak ma res nako traiter ba nga jëlat sa position feebar yu graw yi li graw graw bu ci ne am na lu ko yàlla wàcce muy saafaraam wax naa leen lu mel noonu wax naa leen ne suñu boroom nee na maa wàcce alxuraan wàcce ci saafara boo xam ni day saafara jàngoro yi waaye ci ñi ko gëm kon yow bul ni feebar sàngam mënut wér da nga naan mënuma ko faj ñi koy wute xaalis nag dafa bari métier bi ñi koy wute xaalis dafa bari waaye defe naa ni ku xam sama wayjur wéyam bu dëkkoon Tiwaan Wolof nga xam ni baayu jaboot yi lañ ko tuddee woon kilifa yeeg ñëpp xam ko muy xaritu ñëpp defe naa ni e, kooku yàgg naa am ay résultat sama ay maam noonu sama ay ndijaay noonu ba tey xam naa loo xam ni dafa jóge ci xadara bi ànd ak ndigal koko dañ ciy sawar parce que ñun matériel l'islam lañu ba paré babakar si lañu tudd dëkk waawon kon lepp lo xamni ne na ci hadara ba rek dañu ci sawar ñaan na sunu borom it nak limu ñu jotta may akas neew mo yalla barkel ko waye ku mënarul la jariñ it takkan milliard di indi bu nu gisee waaw yalla ngi ni suturalit ba réew mi ak fudul réew mi wax deug yalla xam nañu nu bu baax kon ñu sant ci yalla fas ak yeen ak euh, almuna ak euh, dara ji tiwi di def ak yeen ay émission yo xamni ni danañu dem ba wonne ni len du teegi ni rata ngi nii siddéem ngi ni xaye ngi ni mba buñu len ko waxulit wax len lamuy jariñ loolu dafa nekk lu am solo trop su ko defee kon eh, bi ma ci ëppal solo daal mooy faj daal bala nga caa dugg da nga war a maîtriser li ngay fajoo soo ko maîtriser pour nga am ci ay résultats am ci ndam day yomb te it boo ko tegee ci yoon waxuma sax li nga ciy fore waaye da ci am tuyaaba ndax jaamu yàlla la bu ko defee boo nekkee ku démocrate rek pour nga fajj kat day yomb parce que li ngay jëk gëm moy yow ya yalla moy faj yalla moy faj yalla moy safara waye sama dañi sabab lu len té te len sukkandiko ak yëngu ya dellu ni to sabbu bi baye sabablu lu baña sabablu lu na waxal yow mi jotti sama message bi man babakar sin lool mom soyi maade bi ñak teggin yalla la am déet kon da ngay lu gëstu jang. kil nag li la dafa am eh, ku ma doon defaral calendrier ma ñëw dikk fekk mbiñ soiñ tout ma ne ko ah da ngaa juum de mu ne ma ne ko soiñ tout mu ne ma ne ko ëpp na mu ne ma ne ko xam-xam boo mën a am ci Sénégal ak ful Sénégal am na ku la ko ëpple te taxul mu taxaw am fitu ni soiñ tout soiñ tout yàllaa ko moom da ngay lim quelque kay def ca la nga man am ca résultat continuer ko yàllaa ngi ñu suturaal nag xëy na lii sax bariwul lu ma koy def dama ko bàyyi xale yi rek ñoom ñu di ko def parce que maa leen formé li ñu xam ginnaaw yàlla maa leen ko xamal ñu leen dolli ca te ñoom ñoo maaseek loolu waaye nag lii moom télévision xadara bi moom lépp lu mu bëgg te man dama jutu ci xadara bi Salatul fatiha toj ma génn kon lepp lu lal ci hadara bi rek dama cey am cawarte ndax loolu sax taxu ñoo jokk waye daqaaru sëñ Babacar Si gii nga xamni ni defe naa kuy wut garab eh, defe naa ni do fa rombu daqaar ndax bari na ñeriñ lol bari na ay façon lol bari na ay facette lol new nonu nen nap nonu bari na inshallah dañ ci ñew ci yeneen émission yi dakaru sëñ Babacar si def dara def fa juma te alaaji Malik fa ñeuk julli takusan ak sëriñ Touba ak sambatu kulorka ka dakar ga mi ngi fi de deg inshallah dañu fa dem def fa émission bu neexee yalla loolu dafa nek lu am solo diggante la kër yoro la ak fi tiawon dañu fa dem Eh, barab ba dafa réeroon waaye jëmmal naa ko feeñ na def naa fa ijuma def naa fa daara macha allah ba nit ñaa ngay dëkk di ko wër te bi sida eh, bi maam Mor Khoudia si jotee ndigal si daaj Malick pour mu dem kër yoroot eh, taal fa daara la ko booleeg sëñ ko si sama turandoo moo ko jàngal ba mu wàcc alxuraan ba mu demee nag ñu nettali ko histoire boobu. fu mi di jotee mu jël ay kaamil ak téeréem dem ci daqaar ga buñ jotu ko daqaaru sëñ Babacar Si looloo ko waral mu nekk lu am solo loo xam ni boo ñëwul ci télévision xadara bi secret yi fi nekk doo ko xam waaye boo ñëwee ci télévision xadara bi nag xam secret yi fi ne bu ko defee kon mi ngi noonu Covid bii fi ñëwoon ay milliards lañ ci financé ci doctor yi te praticien ya ko faj ñoko fi jëlé ñoko fi jëlé garab wala fi ñoko fi jëlé ñoko dakk mu dem ak loola mëna dal am nay xéti garab yo xamni ne boo rek nan li rek dem sa yoon wa kon fajum wala dafa am solo waye li ci am solo nang moy nga tek ko ci yoon jang ba am xam-xam wut ay këyitam yu walabal dor ci wara mëna parce que li nga xam ne moom la ñu tënk ci ak waa ministre de la santé mooy koomul récépissé waroo faj koomul carte amoo récépissé waaye am nga carte association voilà léegi nag loolu malheureusement ñi ko war a toppatoo toppatoo ko léegi boo mënee bind mën a daggub xaatim rek daal di da ngay faj waaye kenn ku nekk xam nga kalaman ndax lu yàgg dëgg la nag loo xam ne sa maama ko doon def Eh, eh, eh, ko jogu fa say ndijaay di ko def ak sa yaay ak sa bay ba nga ñew mu defar la ko nga formé formé la ca ba nga ba nga formé ca ñeneen ay goor ki jigen ñuy faj bo ñewé sama kër ay goor ki jigen ñoy faj waaw bo ñewé loola japp ñu wax la bu am am na ño xamni buñ la jëfalul saafara sax buñ la waxale ay sarax rek bo génnee sarax yi dem sa yoon ak yenen ak yenen su ko defee loolu mënul a ñàkk man bi ma koy tàmbali dama dem ci sëñ Abdou Salamine wax ko ko tàggu ko muy ma ah sa jur de daana ci ne waaye loolu de wàññiwul dara mu ni ma ñun sëñ kër Si mi ngeen boole woon ak góor gi Moor Njaay bu Tiwaan Wolof moo ko sama bàyyi ñoo ak sëñ Aliou Cissé Tiwaan Wolof foofu lañ jógee door dëkk yeneen kër yi mu jaboot ju ne bii leen sëñ Babacar Si di booleeg soxna sukkan da leen ni jaboot yu ne da nga koy booleeg kuy dalal xelu xelam parce que jaboot euh, fit wa daa woyof lu dal doomam rek mu defee ni dee dikk na waaye da koy booleeg koo xam nag day dalal xelu njabootam loolu góor gi Mor Njaay bu Tiwaawan Wolof ca la bokkoon sama baay góor gi Mor Soog Mbuub ca la bokkoon yu siise ca la bokkoon ak ñeneen ak ñeneen mu nekk lu am solo mu nettali ma histoire boobu ma dem ci sëñ Mansour wax ko ko mu ni ma sa baay de maa ko joxoon ndigal ma ne ko ah mu ni ma waaw ci diggante la kiis ak examen ak yooyu yëpp macha allah kon faj wolof boo gi boo déggee ñu naan faj naturel mooy faj wolof léeg-léeg docteur la seet bay la saye nga dem ci Eh, kuy faj faj wolof te man ko làmbatuwu ko boo ñëwee mu turee feebar bi bis bu nekk ngeen nga gis ku jógee hôpital ne la waa hôpital nee na gisuñu dara te fekk na booba ñi tëdd ci hôpital ba moo leen gën a feebar waaye ñoom mënuñu koo gis parce que baatin la nag waaw baatin la moo tax ñaari ñaare sax buñ ma boolee ak nit ay affaire u yooyu yëpp dañu koy def waye dañu la nan budé dee rek jël ngay déplacer wu di ñëw da nga nuy wo rek jox say filiation ñu xol bu la jaralé nga déplacer ñëw bu la jarul nga dem seeti kenen waye rek yalla ngi nuyu ci sutural ndax la ñu sëñ Abdou alamin Al Amin waxoon moom def rek comme arme dafa ñu waxon ni ah ma ngi leen di sétlu nak te di leen déglu waye ni ngeen di doxale nonu la continue len ci lolu ndax ku ñepp di diglu ta di la xol da ngay jaar fu leer tay def lu xam am deet ku ñepp xam deglu la di la setan, da ngay jaar fu leer tay def lu xam ma ko papa digal nga ma de waye mu ne ama ah, ko ñax nga ma waaw waye nak inshallah allah yene wacc li ñu mag ñi bàyyee lit bagaas yi mag lañu yor fa suñu ko yéenee rax fi ne am na façon boo xam ne bu la dalee boo jëlee ci xobi lingom yi rek juróom-ñaari xob boole ko juróom-ñaari xobi karasol am na lu mu mën a faj boo jëlee persi boole ko xobi karasol boole ko warga ak sap, sap am lu mu faj sama ben dom sax maye ko ba ñu bari gis ci resultat diko ñaanal côté bu ne te da ko maye rek parce que dafa dafa gaaw ci jabet li ñu tuddee jabet dafa gaaw ci wa bobu euh da ngay wut euh, xobi karasol ba sa loxo fess nga wut xobi saab-saab ba sa loxo fees nga wut persi bu tooy bi bu tooy bi moo gën bu wow bi baax na bu tooy bi baax na waaw ñoom ñëpp baax waaye bu tooy bi moo gën yaa ngi dégg nga wut xobi persi eh, persi nag dafa am ordinaire am chinois bu ordinaire bee gën waaw eh, après nga wut warga nga bu warga nga bu warga warga bu mën a doon baax na boo ko ci boo ko defee baxal ko eh, loolu boo jëlee ñaari litre yi ndox ñaari litre baax na waaw ñetti litre baax na nga baxal ko ci ba bax ñaari façon la nag bu ci ne baax na mën ngaa baxal ndox mi ba mu bax nga ñëw raxas yooyu def ko ci siwo sotti ko ci ndox mu bax mi daal di koy ub bàyyi ko ba mu sedd waaw ngay boo añee boo reeree boo ndékkee ngay naan par kaas kaasu huit kaasu wit kaasu ataaya bu la neexee nga baxal ko bu ci ne baax na bu ci ne day def effet day nga wax bi fi ñuy rawantee rek mooy ni ngay composé garab yi ba am li nga bëgg wala dosage bi nga ciy jël limite bi waaw limite bi parce que garab woo caabi la boo pee du tijji bu yéesee du tijji waaw kon boo ko dee jëfandikoo Eh, limite bi da nga war a xool noo koy limité effectivement xam nga bu ne bu dee lu demee ni hémorroïde xam nga hémorroïde daa bari façon am na bu génn am na boo xam ni picc la def ci suuf di metti am na boo xam ni génnul waaye boo dee dem toilette day génne deret boo bësee au lieu kon dugub génn deret ay génn waaw parce que hémorroïde li tax mu bon ci biir la yàq ba pare door a génn ci biti voilà su ko defee kooku dafa am noo koy traité dafa am noo koy traité traitement bi nga koy traité suba ak ngoon euh, bukkul beneen bi nga xam ne pour bi nàcc la dafa am beneen façon garab spécial boo xam ni moom ngay composé mu di ko ko naan pour mu mën a faj nàcc nàcc bi mën a faj góom bi ci biir man ko traité parce que ñaari ñaar rek hémorroïde boo gis ko ko am rek day seere ndigam di mitti boppam di mitti léeg-léeg muy miir dégg nga kooku animé da koy yomb ñàkk deret da koy yomb parce que euh, hémorroïde dafa baaxul day naan sa deret baaxul dégg nga bokkul ak bi nga xam ni euh, day dafa nekk ci biir di metti rek kooku dafa am garabam spécial buñ ko traité bokkul ak bi nga xam ni dafa am picc bu génn ci biti li ñuy tuddee xooxaan it xooxaan jikki-jikki rek say bagage néew yi xam nga loolu sax dafa xaw a bari surtout demkati Europe yi xam nañ ci dara ñu baree ngi liggéey man Europe te mosuñu maa gis xëy na ñu gis ma ci télévision rek wala ñu dégg ma ci rajo waaye mosuñu ma gis wala xëy na sama WhatsApp ak yooyu parce que foofu sedd bi leen di jàpp te nga yor siti parce que hémorroïde eh, eh, siti mooy ndayam ak kurabët ñoom ñoo koy fonde waaw waaye bu demee nag ba nekk hémorroïde hémorroïde la waaw dafa bari ay façon soccetit dafa bari ay façon asma dafa bari ay façon asma ñett ba ñent la asma momi tam dafa am nuñ koy traité asma bu ne ak na la koy faj ak nañ koy fajee amna asma bo xamni ni bu ñu xiné rek ko commencé am problème amna asma bo xamni ni bu dé taw di yebbu yebbal ko commencé am problème amna bo xamni ni bu dé sahar sahar sahar lay bañ mbaa lay koko day dal di commencé am problème amna bo xamni euh manam Euh, poussière poussière poussière moo xam euh, yére yu tilim la moo xam denc bu yàgg la moo xam ainsi de suite yooyu da koy jàpp ñeenti façon yooyu nag boo ko munta ràññetle munoo faj asma kurobatit boo ko munta ràññeetle ak siti munoo koo faj bari na koy jàmbat faiblesse euh, fekk na booba dafa am siti bu tëju waaw boo amee siti bu tëju te fajuloo ko traité woo ko mën na laa jural faiblesse boo dee jigéena mën na laa jural ñàkk am doom bare na ku ñaan daa amul doom fekk na booba ñaare ko téye rab wala siti waaw boo koy traité wu rek muy dañ su ko defee loolu daal eh, bu fekkee ne tënkal naa leen loolu la bu fekkee nag am na question yu ngeen ciy dugal ngeen dugal ko ci waaw. Wow, um, ak tamit altrose. waaw noonu sonal di nga koy. effectivement ah, ba ak ak sedd. ak sedd li ñuy tudde rhumatisme. te duñu benn. arthrose ak crampe ak rhumatisme euh, ak nerf sciatique duñu de bokkuñu sax lu ñu leen di faje waaw. man na dama yaakaar lépp rek benn la waaw déedéet. Hmm sedd sedd la eh, nerf sciatique sidit lay japp yaangi deg atros atrose day japp aw yaram comprendre nga duñu ben duñu benn bokkuñu luñ leen di faje waaw duñu bokku ñu di faje waaw xolal ma won la ni la garabu walaf, dafa dafa làq waay soriwu mhm. sa yaram bu doon mitti rek nga xam sa mi ngi mhm. du sciatique du du sedd du siti du leneen yaram bi daal da ngaa jikki ci rek mu son di mitti li ci gën a gaaw mooy cereeg meew cereeg meew ngay lekk ba ni kekk dem tëdd boo yeewoo sangu dem sa yoon waaw yaram muy mitti loolu ci gën a gaaw hmm? eh, wànnen dafa am lu koy faj wànnen waaw boo wànnenee nii boo ñëwee su ma jëlee ab këriñ wax ci li ma ciy wax rëdd ko ci say bët bu jant bi dee so ak buy fenk léegi nga dem sa yoon ñetti yoon nga dem sa yoon bari na sax ñoo xam ne du ma ko def ñetti yoon benn rek ñu dem seen yoon loolu lépp dafa li may saraa rek mooy la suñ borom waxaan wa nunazzilu mina al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma lil mu'minina loolu garab wala fa ko tax a jóg waaw am na yenn paj yoo xamee ni hmm. eh, am ñoo xam ne yàlla da si may am ñoo xam dañ koy jàng am ñoo xam dañ koy doon hmm. yow dafa mel ne da ngaa boole ñaari yi daa mel ne yow da kaa jàng ba pare doon ko si sa ñaari wéjur comme ni nga ko waxee waaw dama koo jàng ba pare doon ko dama koo jàng ba pare doon ko tey fii ne bu la rab jàppoon boo ñëwee damay naxanteeg moom bu dee rabu jullita ma naxanteeg moom yedd ko bàyyi mu dem bu dee rabu yéefara ma naxanteeg moom bu tëë ma defanteeg moom ba mu tuub ma affecté ko Touba wala ma affecté ko Makka wala ma affecté ko Medina wala ma affecté ko ci Seydou El Hadj ni ko ci demal jaamu yàlla foofa àndal ak nit ña di def lu baax ndax def lu bon amul sens parce que yàlla def bind rab bind doomu aadama ñoom nag ñu bàyyi fi rab yi di dem ci doomu aadama yi parce que doomu aadama yi leen gënal dégg nga wax bi te li ci gën a yéeme mooy jinne am na nit ñu ko dul gis. du ñëpp nag. ndax ki koy yilif ki nga xam ne mën na ko yilif mën na koo sant mu def mën na ko tere mu ba bu tëë mën na ko duma bu tëë mu tër ko kooku jinne jaxalu ko parce que doomu aadama xamul boppam waaye li yàlla bind lépp doomu aadama ko ci gënal te doomu aadama yilif ñëpp gaynde nag day gis jinne te jinne du gis gaynde gaynde day gis jinne te jinne du gis gaynde loolay problème bi te fu mu ko fekk du ko jaarale yoon. benn lañ lañu dégg naa sax gaa yi wax naan rab rab la jinne jinne la déedéet jinne la rek jinne la rek dafa am shayatin jinni euh, bu bu bu yéefar ak bu jullit waaye jinne la rek jinne la rek parce que koo ci jàpp tey boo ko waxloo day wax ak yow foo dëkk muy la place sangam dañ maa yónni ci diw kañ nga dugg mu ni nangam waaw génnal mu ni xamatuma fu may jaar ndax damaa yàgg ci moom nga ne ko jaaral place sangam génnal bu tëë nga defanteeg moom parce que jinne fii ba déwén xam na li xew déwén ba ba fukki at mën na laa wax liy xew waaye li ci suba rek fàtte na ko xamatu ko boo nee cas alxuraan di ko jàng bala nga mën a faj jinne dëgg rab da ngay miin alxuraan waaw parce que boo jëlee aaya mu jël aaya boo jëlee saar mu jël saar boo jëlee isib mu jël isib waaye boo ko ruubee rek duma ko boo ko ruubee rek mu jàndaxe mu jaxasoo mënul loolu foofu nga koy jàppee nag foofu nga koy jàppee aaye bari na aayee bari na ne ko nag boo ko jàppee ba jekk ko day mel ni sondeel boo xam ne danga nga koo taal wala nga di ko sotti beteex loolu lay mel ci yaram wi moo tax boo dee traité jinne eh, ba mu bàyyi dangay nodd ci nopp ndijoor bi li xaam ci noppu càmmoñ bi bu ko defee assuré nga ko en général ku jinne jàpp dëgg sonal la boo ko traité bu bàyyee rek mu nelaw léeg-léeg nit day ñëw fii ñu naa la du nelaw daaw ba du nelaw juróom-ñaari weer du nelaw ñeenti weer du nelaw nangam nangam bu dee jinne la boo ko moccee rab bi moom la ñaarab boo ko moccee boo ko ba génne ko benn nga tuubloo ko wala nga duba ko mu dem wala nga daq ko mu dem waaw su taxawee nag fas ko yéenee yàq fas ko yéenee saboté nga rendi ko parce que jinne moom baaxul ndax la tax nga bàyyi fa sa moroomi jinne dem ci nit ñi fekk doomi jàmbur nga dofloo ko wala nga wecc ko kook sa doom bàyyil ko fa koo xam ne da ngeen a yoo ko rek a yoo ko yut jaaduwul wala mu ngoog. Hmm. Hmm. xam naa léegi émission bi xam naa fi ñuy rek. Hmm. moo tamit xew si école yi gis na tamit école léegi daanuy tamit bari na. jinne loolu wàllum rab la wala jinne la wala lan. jinne Maymuna dinañ ko tuddee sama benn maam. jinne Maymuna. jinne Maymuna eh, dakaar nag la ëppee. am na ku mu ja daaneel ñu indil ma ko fii. yaay ji ñëw. bi mu ñëwee. damay bañ a tudd tur wala may jox adresse amu ma habitude boobu. di gis naa nag Serigne si di ko damoo. ñaanal nit ba ma am bayre ngay nga nga eh, kenn ñëw nga di ko tudd turam xeeb naa la xeeb naa la yaa ko defutal bay da danga ko musal compal tuuti rek moo xam artiste la moo xam mbër la moo xam ab sëriñ la nga di ko nga di ko tuddoo di ko dara jawoo pour lan loolu ko def da ngaa xeeb sa bopp bi mu ñëwee indi doom ji jinne may mun naa ko jàpp ma ñu ma ko ma xol affaire bi parce que ah, bala may bala may bala may fajj damay damay xol ma xol ko ma ko yow ya indi sa dom wa yak na febar feebar bitim rew sax dem na fa faju ji ma ngan lan mané ko sa dom ji ya ko indi ne nga ah, jinni may mu na ko japp muni amane ko wa yak gën a feebar mu ma man mi dama ko don neub muni ma man mi mané ko waw da nga yor mitu bop woo xamni dem nga fu ne def nga lu ne mu nu yëkkat jooy yàlla defal ñu sutura ñu euh, ñaanal doom ji ñaanal ko yàlla faj doom ji faj ko moom parce que man damay ñaan waaye fajuma yàllaay faj waaw kay jërëjëf Ñang euh, Faal Daara J TV di gërëm itam Pape Aline mi nga xamni ni yoré almuna di rafetlu itam initiative bi lol ndax li it day wat ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon ci khutbam bu mujju ba rek hal balighta ñu ne ko balighta ya rasulullah ndax jotal naa ñu ne ko jotal nga de mu ni kon balighu anni wala aya aaya tay la moy tay moy sama darniel message tar moy sama darniel khutba waye bu mu fiyam nak ba ba buf tay wal dee leen jottali xutba bi muy jàll kon li ngeen def nii da caa bokk te loolu dafa am solo trop te seen maam Cheikh Sidaaj Malik radiyallahu taala anhu dafa waxoon ni yaa xaayisal baar lil ashdaaf jëratu ko nag waaw yow mi na a jël gaal di xuus di dem siin wala ngay dem fu ne di wuti xam-xam ñëwal Tiwaawan boo ñëwee dinga fekk astaafun bi adratun ala jalami wax na dëgg de fooy mëna joggé ak fébar bo mëna am bu lu yalla wanalé mbaa nu diggante ci kattanu yalla ak mbaxam bala ma ja dugg nag dama koy xol 77 521 48 70 77 521 48 70 wala 76 285 75 74 waaw waay whatsapp bi moy 77 521 48 70 dañuy sét ci téléphone dañuy moccit ci téléphone waaw waaw dañuy seet ci téléphone dañuy mocc ci téléphone loolu nag mbaaxul yàlla ak yu baax moo ko waral ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm eh, di leen wax ma sarkaay laaj bi Aziz asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa